Nicolas mère Fane Ndiaye Diop sama rakku papa sama rakku yaay non ñoo bokk benn papa ñun maam Khady Waat ñun Fatou Moussé mm-hmm. ñun fii chaque àjjuma bi ñuy jaamu LPA chaque àjjuma fii lañ doon julli si mm-hmm. ñu paree bu toggal ñu mbax sama baax ñun nañ fi bu baax jëli mm-hmm. nañ fi ay ay tan ñu waa comité bi yëpp ñu nuyu Moussa ñi nga xam ne xëy moo ñu facilité rencontre bi ñu mhm. Abdoul Aziz sama sëriñ mhm. parce que comité local bu Cambérène fépp fu ñu dem ci biir Dakar mhm. ils sont cités en exemple et li koy waral mooy aspect inclusif bi am fi tudd nañ fi ba tudd suñu mbokk guinéen mhm. bokk ci kuréel sànq mhm. si ay si sa ay wax wax nga ne yow acteur culturel la dolli si moniteur de collectivité éducative ñu papa bii mi ngi liggéey ak jàkka ji mhm. ay jigéen lañ ne ñu ci mbirum presse Abdou Aziz mi ngi ci mbirum communication digitale donc dafa dafa yaatu mu ngeen ko waxee da ngeen organiser maa ngi gis léegi seen planning d' activité personne date personne responsable mhm. lépp active d'activité donc ñu wane rek mbirum coordination bi ñu jàngal dans les collectivités mhm. bépp activité booy def bëgg mu réussir mhm. il faut avant pendant après beneen aspect bi mu bëgg a mooy similitude yi ñu am niroo yi ñu am entre seen comité bi ak révoquant parce que ni dañu ne liggéey bu amul organisation rek du dem fenn mhm. te gis nañ bu njëkk ba ku wax wax ci Covid mais ñi continuer parce que ñu néew lañ mhm. yàlla dimbali nañu balaa ñuy sumb xeex bi ñoom stratégie mhm. donc bi ñu tegee réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé ñu ne ñun liggéey day am organisation si loolu lañ am ñeenti tànk tànk bu njëkk bi moom lañ tuddee comité scientifique maanaam nga nekk docteur nga nekk professeur agrégé nga nekk nga nekk nga nekk liggéey ci mbirum santé dugal la fi mooy waral ñun duñ def dara te professeur Seydi ñu nga xam ne mooy yor xeex bi supervisé comité scientifique boobu moom ci boppam lañ ko dénk docteur Ibrahima Fall médecin chef adjoint Ngor mm. mais moom ci boppam mooy superviser tous les travaux donc bu ñu nekkoon ñu yaafus am naa ne dina génn moom am na franc parler boo xam ne ne bokk ma rek hmm. beneen bi ñu am tam bi naan pôle communication mënuloo def dara te doo ko génnee ci xarala yu bees mu waral ñu am journaliste ñoom blogueur ñoom ñi naan activiste pour que mbas bi bépp ñu xeex lépp luy information boo xam ne dafa nekkul information bu baax ñu koy woowee fake news hmm. mun a tibbee ci pôle scientifique jox ko médecin yi euh, journaliste yi ñoom ñu tasaare ba mu nekk information boo xam ne population bi ñu ko mën a beneen pôle bi mu nekk pôle appui conseil ñu nga xam ne jot nañu diriger ci réew mi nga nekk ministre comme Ndioro Ndiaye nga nekk Amadou Tidiane Wane ministre de la culture hmm. nga nekk euh, ancien député comme Cheikh Oumar Sy nga nekk directeur d'ONG comme Alioune Tine ñun ñu ñëpp bokk ci kuréel bi parce que dañuy ne ñu li ñuy prôné mooy faire ensemble. Mm-hmm. parce que bu ñëpp demee rek dinañ def la même chose. te du am impact bi nga xam ne buñ boolee suñu doole dina am njëriñ. Mm-hmm. ñeenteelu tànk bi mooy pôle sensibilisation. Mm-hmm. nga xam ne tey am na lu mat plus de 400 volontaires ñeenti téeméeri volontaires ci Dakar ak ci Sénégal bi yëpp nga xam ne ñu ngi nekk di liggéey. ma am chance coordonné pôle boobu donc ci sama liggéey de géographe spécialiste de la santé de l' environnement ñu dénk ma pour boobu ñu ëmb volontaire la si loolu ñu ne ñun du ñu ñëw di def parce que boo defee après doo mun évaluer si lañ teg programme bu tudd xeex corona si sa bopp parce que ñun si suñu liggéey dañuy pandémie approche communautaire moo koy xeex Sénégal dafa néew ay ressources donc tey ñun waruñu focus si nit ñi ñu faj leen ñu war a focus ci nit ñi duñ dem hôpital hmm. moo waral ñu ne nañu am quatre-vingt pour cent de sensibilisation vingt pour cent d'intervention médicale moo waral ñu teg programme xeex corona si ñun sama bopp parce que li ñu amoon ci biir koo xam ne dafa liggéey Ebola biir Congo hmm. mu ne tey li ñu war a def mooy ñu def pour éviter lan mooy décès communautaire mm-hmm. li ñu war a def mooy ñu teg des comités d'alerte dans les localités nga xam ne dinañ am euh, organisation bu soft boo xam ne nit ñi ku feebar di nga mën a jot médecin comme yéen ni ngeen ko amee pour que action bi gën a dañ nekk di déroulé programme xeex corona sama ñu mm-hmm. nekkoon nag def plaidoyer ak waa ministère de la santé yenn saa yi sax tàng mm-hmm. ne xeex bi décentraliser leen ko xeex bi Sénégal lii manqué na fi parfois doon na am ay incompréhension mais ñun ñëpp chaque fois dañ doon am ay argument ci yara tegg teggin ñu rappeler leen à l'ordre bu ñu mën ñu suivre ñu dérouler programme xeex corona ñu def cartographie dëkk yi nga xam ne walla ñu nekk Dakar ñu gën a ndóol ñu dem laaj leen def ay enquête laaj leen yéen bu ngeen amee 1000 francs entre dépense ak jënd raxasukaay ak saabu affaire yooyu noonu lan ngeen di tànn ne ñoom balaa ñoo xeex mbas ñu def dara seen biir ba pare si loolu lañ ne ñun léegi nañu focaliser ci joxe wu masque si joxe gel si joxe saabu et cetera si lañ contacté ñu ne ñu dund Dakar am ñu jàppale ci mbirum masque jox ñu gel parce que kuréel gi li ko tënk mooy volontariat comme yéen mooy similité bi ma leen wax ba tey ba sàmm jotuñu benn dërëm état du Sénégal ba tay ba sànq jotuñu benn dërëm ONG te dañu ne boo wàkkirloo si yàlla yàlla jàppale donc si loolu la ñu ne ah oto bi assemblée jox député yi pour askan bi la nañ ko mettre à la disposition du peuple docteur Ibrahima Fall ne man damay am carburant ñu indi Abdourahmane ne ah man cotisé naa cinquante mille Moussa ne man mille francs la am et cetera et cetera ñu dajale ko mu mat un million si loolu depuis dix mois si la def activité yàlla dimbali def nañ lu mat dix journées de sensibilisation fu mel ni garage boo maraîcher fu mel ni Liberté 6 barrage def nañ désinfection fu mel ni cité Bissap jàppale nañ ba jàppale sax fédération de sénégalaise de taekwondo pour wane dimension inclusive bi am xeex bi ni mu amee solo donc euh, loolu lañ jot def def nañ lu mat cinquante vidéo de sensibilisation yoo xam ne ñun ñoo doon déplacé wu dem seeti ku mel ni jaraaf yu sundooy mel ni bekkaay may ñun approche communautaire boobu dañ mm-hmm. adopté woon parce que ni ñuy gis Sénégal ñu waree wax mbirum communauté ñuy dem jëli waykat bi mm-hmm. mu ñëw war a wax ci Cambérène kaas mm-hmm. bu boobaa population bi dootu ko consommer parce que nit ki boo wàccee andam rek boo indee leneen du ko consommer ñun nag dañ doon dem directement ci acteurs concerné yi moom mm-hmm. ñu wax ak ñoom ñoom tamit ñu mun a wax ak seen ay nit pour que ñu mun a dégg mm-hmm. suñu médecin yi ak pôle scientifique bi def nañ lu mat plus de quarante cinq émissions télé mm-hmm. pour dem ci télé yi wax ak média yi ñu ñu ñu dindi yenn xelu sénégalais yi am nañ page Facebook boo xam ne tey lu mat plus de cinq mille personnes ñu ngi koy seetaan fi mbas bi toll ak léegi am nañ lu toll sept cent cinquante mille interactions si biir page Facebook bi parce que ñun yàlla daf ñu dimbali dañuy travailler sur les données mm. et bu ñuy def waaye du ñu wax nii rek pour waxal dañ koy teg si fa am solo ñu ne loolu moo waraloon ñu ne duñ jël benn xaalis ONG dañuy mettre suñu bopp ay outils yoo xam ne ëllëg si biir bu ñu demee si ONG bi kat ñun du ñu topp si li ONG bi bëgg mm. mais ONG bi day topp si ñun li ñu mm-hmm. def parce que am nañ ay outils yu ñu permettre ñun ñu ne en temps lii lañ def mm-hmm. lii nii moo sooxe lii lañ war a améliorer et cetera mm-hmm. donc ñu ngi rafetlu bu baax vraiment euh, doxalin bi nga xam ne gis nañ ko mm-hmm. te mu neex ni torop organisation bi am fii ñu tamit ñu nekk di def laa même chose moom loolu dañ koy dañ koy saluer léegi nag doon nañ fi lancé bu ñu mat ñaari campagne benn bi une femme un as parce que dañu ne jigéen dafa am xeex doole ci xeex bu ñu leen mm. protéger rek ñoom tamit dinañ servir de relais bi loolu passé ñu gis ministère de la femme sax reprendre ak ko mais mu nekk lu baax mm. suñu nañ ne révocable dañuy def une influence positive lépp loo xam ne dafa baax pour la communauté mm. nañ ko jël bi ñu tolloo biir mois de juin juillet août ñu gis ne mag yi ñu ngi dem ñu lancé Euh, aar suñu mag ñi mm. def campagne aar suñu mag ñi ñu gis itam ministre de l' intérieur jël ay dispositions mm. tere lépp luy rassemblement plage yi ñu commencé di ko surveiller parce que ñu lool lañ leen di mm. bi deuxième vague bi ñëwee ñun depuis le 30 novembre ñu ngi alerte on n'a pas arrêté dañ doon jotee suñu volontaires yi nekk ci Dakar et cetera ay masques ak ñoom seen bi 30 novembre ñu alerte gis ne ne président si boppam moo ne deuxième vague attan mhm. ñun ñu ne président mooy le sénégalais le mieux informé bu waxee deuxième vague rek xëy na soriwuñ ko wala ñu ci tànk ñu mhm. si lañ lancé une campagne bu tudd moytu ngir mucc mhm. moytu ngir mucc parce que xam nañ ni virus bi di laaj moytu ngir mucc parce que am nay mag yi suñu kër yi et cetera moytu uh-huh. ngir mucc parce que ñun ndaw ñi uh-huh. nee na ñooy dem di dikk mun nañ wàllante feebar uh-huh. donc si loolu daal lañ nekk di déroulé mu tombé nag mu nekk deuxième phase programme xeex corona si sama ko ñoo Moussa itam ak Aziz am taxawaay bu rafet parce que lépp lu ngeen def mm-hmm. dañu koy yónnee si suñu plateforme yi ñu suivre te ne yenn saa sax am na ñu nu ñu doxalee ci waa Cambérène lañ ko jëlee mu ñu daal on est on mm-hmm. lépp lu ñu mën pour defandoo ak yéen ensemble une activité parce que ñu acteurs locaux yi. Mhm. la ñuy parce que partie prenante locale yi. bu ñu mhm. jëlee seen bopp xeex rek. Mhm. ñun duñu ñun duñu ñëw def. dañuy ñëw laaj leen ñun lan mooy seen ay besoins naka ngeen di évaluer bu ñu waree def activité naka la ñuy procéder. bu loolu wëyee nag ñun ñu ànd loo def moo waral ñu mel ni ministère de la santé bi ñu cité en exemple. ministère de la jeunesse bi ñu cité en exemple Assane Gueye saa yu wax mbirum engagement communautaire révocable mhm. lay wax et ñu ngi siy sant yàlla parce que à chaque fois bu ñu demee ba sori dañuy taxaw ñu évaluer lan moo baax bu ñu paree activité te évaluer wuñu sur mhm. place lan moo baax lan moo baaxul lan lañ war a corriger et cetera en tout cas te tamit ànd àndu dëgg loolu moo si ëpp solo amul mhm. kii député la amul kii professeur agrégé la parce que ñun ñëpp ñoo am njëriñ pour communauté bi ñun ñëpp ñooy xeex pour communauté bi xëy na loolu moo ñu defal ndam parce que on consulte tout le monde on met à la disposition de tout le monde les mêmes informations mm-hmm. parce que weerante su bëree rek dafa am lu leer et ñun ñëpp sur la place publique pour mm-hmm. bu ñu waree jël décision mu nekk décision bu collégial mu xam bu ñu waree ma en œuvre ñëpp ay xàcce mm-hmm. su fekkee ne am naa lu ma fàtte peut-être Moustapha moom moo lépp luy mbirum Tibi Rebacap, masqué, génie, et puis il le fait de manière transparente. Chaque fois, il nous donne l'état des lieux de la réserve pour mm-hmm. aller dire on est en, zone mm-hmm. rouge, aller chercher de, nouvelles munitions, etc.